dafa jotoon ñu def euh, xayma ci li nga xam ne moom la ñu jotoon na def ci assemblée générale bi mais également waajal suñu feuille de route liggéey bi nga xam ne moo ñuy xaar sur le terrain ñu dem def ko ak boole kook adjoint au maire yëpp monsieur le président de la république ak son gouvernement que ñu ngi leen di déglu ci yi nga xam ne moom lañ leen bindoon ci euh, mémorandum bi ñu jàppale ñu si ba nga xam ne xoolaat nañu revaloriser statut élu élu yi euh, ba ñu mun ci gis suñu bopp maa ngi koy wax di ko waxaat xam nga euh, indemnité yi maanaam li ñuy jox adjoint au maire yi fukki junni la tollool xam nga fukki junni ci jamono bi mënul def dara te adjoint au maire yi ñoom ñoo nekk sur le terrain nekk en étroite collaboration ak population yi maanaam di demalanteeg population yi di dikkalanteeg population yi kon jot nañu dooleel leen jàppale leen ci côté yëpp ba nga xam ne politique bi nga xam ne war nañ ko mën a def pour askan wi ñu def ko ba askan wi mun ci gis seen bopp